xam naa li ci dellu yàlla baax na donc ñu dem ci moom Mamadou Ndiaye xool ndax moom pare na euh, euh, démb euh, dañoo limogé Mourinho waay Mourinho mu nekk information sportive bi nga xam ni moom lañ gën a partagé démb ci ñi nga xamante ni ñooy fans yi nga xam ñoo bëgg football euh, José Mourinho mi nga xam ne moo nekk moo nekkoon entraîneur bu Manchester United mu nga xamante def na fa ñaari at ak euh, genn wàll démb dañ ko daal di limogé information bi nag waa club bi ñoo ko fésal ci seen euh, compte officiel bi nga xamante ni ci réseaux sociaux yi la ak seen site internet daal xam le ni pour insuffisance de résultat lañ ko daal di dàq génne ko jox ko ay li nga xam ne mooy moom la ñu waraloon nga xam ne toll na ci vingt cinq millions ndombal tànkam ndaxte euh, club bi mooy dund ay jafe-jafe mi ngi ci sixième place ci Premier League bi ba pare tollu am seulement euh, vingt loolu nag moo tax ki nga xamante ni ñooy diriger ngànk club bi daal di koy tekki ndombal tànkam ñi ngi xalaat nag yeneen entraîneur ku ci mel ni Zinedine nga xamante ni mooy ñeneen euh, entraîneur yi nga xam ñu ngi leen xaar pour ñu jiitee li nga xam ne mooy club boobu di Manchester United Pape pendant ce temps là Mohamed Salah la ñu def meilleur joueur africain. ñi ko def mooy sunu confrère yu BBC ñoom ñu nga xamante ni dañuy def chaque année Euh, africain yi nga xam ne ñoo gën a fës tàggat yaram bi nga xam ne mooy football euh, li ñu a jàpp nag Mohamed Salah moo ko jël pour euh, une deuxième fois consécutive mu nekk égyptien bi nga xam ne actuellement ma nga fële ca Liverpool bokk bokk Sadio Mané ko doon xëccoo sax d'ailleurs waaye ki ko tabb muy égyptien bi di Mohamed Salah moom la ñu gis ni mooy africain bi gën a xarañ ñi ngi xaar ballon d'or africain bi nga xam ne ñu ngi koy am fas am fii Bargny basket Bargny basket club. Bargny basket club benn club la bu ñu club de basket bu ñu organisé bi ñu créé depuis 2012 waa Bargny am ci taxawaay bu mat li ñu ci bëgg nag mooy euh, jouer ci euh, national 1 bi ci saison ci année yi ñu jëm mën nañu déglu seen coach bi te ñëwaat ci plateau bi. su première fois ñuy qualifié tournoi monté manque d'expérience bi am na ci. et puis cadre cadre basket bi xam nga boo tàmmee jouer plein air après nga dem salle fermée am na ay paramètres yoo xam ne day joue te yooyu jeunes yi duñ ko mën a duñ ko mën a yooyu yëpp dañuy ci seen fugg la ñuy joué ak yooyu ak te abusé wu ci tiire yooyu yooyu yëpp nag jàngat nañ ko ay leçon lay enseignement yoo xam ne tiré nañ ko ci tournoi bi dañuy préparé conséquence pour an incha allah année prochaine pour ñëw en force incha allah pour le moment on a gardé gardé nañ effectif dañuy jéem ci relève bi en l'occurrence cadets yi juniors yi dina renforcer waat équipe bi pour préparer incha allah année prochaine ñëw en force comme que tournoi bi jël nañ ci expérience bu bari dinañ xam déwén nan la ñuy aborder incha allah euh, championnat bi régional ba pare après nan la ñuy ba accéder tournoi monté ba incha allah dem première division. le une poche ne peut pas nourrir, une seule poche ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas comment dirais-je, ne peut pas tenir un, championnat de deuxième division. Bon, il va falloir, il va falloir regarder comment, comment organiser pour, franchement, réduire, réduire complètement le tournoi de, de, de deuxième division. C'est très long. c'est très long il faut il faut foog ñu jàpp ci quoi pour wàññi championnat deuxième division bi. voilà donc muy euh, Bargny basket euh, club. voilà mu tudd Aliou Cissé nekkoon koo xamante ni mi ngi doon euh, nekkoon Dakar Université club di remercier bu baax Mor Bassine demoon nañu Bargny waxtaan ak ñoom wax li nga xamante ne mbébét bi nga xam ne am nañ ko ci championnat national bi ñoom nag dañu doon jouer champion tournoi monté. ci quart de finale yi la ñu des waaye seen objectif mooy saison yii di ñëw ñu gën a organiser waat gën a defaat ay recrues yu bees pour mën a jouer ci. national voilà donc merci euh, Mamadou Ndiaye ci euh, information sport yi nga ñu euh, indil on parlera